fii ci Grand Bour ci yoon bi nga xamante ne moo jëm ca hopital ba ñetti garage clando ñoo daal di nekk ca boobee bërëb ñenn ñi di yàpp jëm marché jaax ca tali yëngu leen ñeneen ñi nag di yab wutali sali ñax-ñaxal beneen garage tamit daaldee yab jëm fële nga xamante ne moom mooy ca ancien juuti jamono jile nag chauffeur yi fare ca yooyu garage ñu ngi naqarlu bu baax a baax yoon yu bon yi nga xamante ne dañ koy romb li ko waral nag di ay liggéey yoo xamante ne ñu ngi ko sumb ca yooyu bërëb te ba léegi benn noppeegu ci waaye tamit daal dinañu àdd ca beneen wàll jafe-jafe yi ñu am fii ci Mbour moom bëri na soxna si buñ ko doon wax fii ba suba duñ fi jóg maay chef de garage su ñax-ñaxal benn ci dëkk bi dëgg la bëri na oto te chaque lépp la nga xamante ni mairie laaj na ko dañ lay dañ koy yëkkati jox la ko mais oto boo fi dawal un mois deux mois dootoo amati organ métti na trop ba ci kanamu yàlla chaque weer nag li ñu warloog maire ñoo ngi koy def fii police yi fi njëkkoon ne ndax ñun jamonoy wëtir lañ fi ne ba jamonoy oto taxaw police yi fi njëkkoon ne bu ñu la saana contrôler nga am pièce yëpp bu ñu la laajee fiche mairie amoo ko di am nu ngeen def waaye boo amee fiche mairie dañ la bàyyi nga dem mais police yi fi nekk tey bëri nañ bëri koo xamante nii dañ lay laaj pièces yëpp nga yëkkati jox leen ko ñu laaj la fiche nga jox ko ñu jox la infraction boo xamante ni yow après du la neex ay pare yu fet ak ay signal yu ñu ñun dañuy kalandoo yéeguñu gaal dem Espagne yéeguñu gaal dem Maroc demuñu Mauritanie demuñu Gambie Sénégal gii lañ toog te gëm na fii liñ bëgg dañ ko fii am nañ ñu jàppale ñu liggéey sàcc ñu jaay ñu ñun daal lii moo nekk suñu jafe-jafe ci mbuur maire bi moom defu fi dara maire mbuur moom moom defu fi dara daanaka Mbour moom yàlla da koo jagleeg lii ndax benn paa sama wax mu ne ma dëkk bii nii ku dëkk ci dëkk bi di ko defar étranger moo koy defar te ñun loolu lañ gëm ne étranger moo koy defar yàgg na nag ñuy jaar ci suuf ba tey yàlla def ñuy commencé di gis télé bu xonk di gis benn benn ñuy ñuula ñoo ngi am yaakaar yàlla baax na ñun fii ak cent ans ñoo ngi fi buñ defaree ñu dund ko si jàmm bu ñu ko deful tamit suñuy doom ak suñuy sët bu ñu ñëwee dañ fekk étranger yi defar ko mbuur a ngi nii daal soxna si lii mooy suñu jafe-jafe ci wàllum yoon bu weesoo li amaatuñ benn problème jërë ngeen jëf nag ci waa Leral TV kontaan nañ ci yéen trop yàlla na yàlla taxawal seen taxawaay yokk seen dëgëraay. waaw sonn ci dëkk bi rek sonn franchement parler sonn sonn sonn gis nga euh, yoon bi après tabaski lañ ko baare yaa ngi dégg ñuy dévier foo dévier gars yi fatal la ko rien que pour yokk la ay coono rek maire bi moom franchement parler day nelaw. wax na ñu jàppale ñu rek gëstu ñu aussi sono nañ ay taxi la ñu yore yaa ngi dégg chaque fin du mois boo dagul fii su mairie policiers yi duñ la may jàmm fay wala fourrière sa oto rek yaa ngi dégg xam nga loolu te yaa ngi koy feete aussi doxoo ci tali bu baax suñu organe yëpp yàqu nañ. jafe-jafe yi fii de li ci ëpp moom tali yu tali yu naqari ci la bokk moom wax dëgg yàlla am waaw tali moom naqari na lool sax waaw oto boo fi yor bépp loo defar tey bu subaa mu yàqu waaw ba pare tamit wax dëgg yàlla moom bëri na ay jafe-jafe daal bëri na ay jafe-jafe lool sax waaw mais nag comme ñu ngi koy muñ bër bi ñu ngi nee na ñu ngi ñuy defaral ay tali waaye ñun tali yi ñuy jaar moom kenn defaru ko wax dëgg yàlla am tali marché bi ne moo ëpp lu daw kenn defaru ko ah xanaa ñu jàppale ñu rek ndax comme ñun ay néew di doole lañ boo gisee nit ñu bari jël gaal yi di bëgg dem Espagne comme lu mel nii la rek ndax yow da nga fiy nekk di liggéey ñu lay fakastal liggéey bi demeewul noonu li nga fi foraatoo ko si néew ñu di ko ñu di ko foqar ñi da ngay dem da sax pour nga xëy liggéey sax problème lay doon ko waaw ñun moom loolu rek la yoo xamante ne bii moom metti nañu lool daal ndax bëri na ñoo xamante ne bii ay safoor lañu woon ñee ngi dugg ci gaal yi di dem ndax liggéey bu metti en plus dëkk bi kenn mënu fee moom daal metti na lool daal metti na lool waaw même njàpp mi tamit njàpp mi safoor yi koo xam ni njàpp mi dafa metti foo taxaw ñu jàpp la arrêt municipal amul arrêt municipal amul foo taxaw ñu jàpp la waaw te da ngay fay droit de stationnement foo taxaw ñu jàpp la foo taxaw bu doon dañ ne la da ngay fay sax mais foo taxaw di ralentir client bi ubbi yeeg police bi ñëw fekk la jàpp la ne la fii dañ koy tere te tere bi amul benn panneau panneau signalisation bu wane ni fii dañuy tere fii te comme ñun ci tali kaw tali bi la ñuy liggéey il faut que ñuy taxaw di jël client taxaw di wàcce client ba ñu ma nag boo droité wul ñu jàpp la mais dañuy fekk nga droité ñu jàpp loolu lépp ay jafe yu ñuy jànkoonteel la te amoo foo ko jooyee waaw loolu. man moo wax dëgg yàlla fii laa ne di liggéey ko mais moom depuis bu ma ñëw fii 2012 ba léegi tali bi moom baaxul donc boo gisee chauffeur yi ñëw fii fii ci garage bi sax dañuy wax ne léegi 200 pour li ñuy wiiree moo sori waaw ñun nag xam nañ am nañu meer wala amuñu depuis boobu ba léegi daal ñoom chauffeur bu ñu nekkoon fii su dee kii di expliqué nii su dee lundi moom da ngay fis fii ñu bëri ñu commentaire affaire bi moom loolu dañ ci sawar donc nag man xam naa. man ak chauffeur ñooy nekk fii ci garage bi booy dem fii garage doo mën une de temps doo egg parce que dañuy dem ba collège kii lycée ba continuer jàpp euh, armeel ya ñu dugg foofu foofu moo sax ba ba ci biir marché baaxul ci biir marché baaxul moom loolu moom yaa bon police yi moom ñu ngi koy wax parce que moom yaakaar na oto moom su dee moom bor moom jox na la oto oto bii na am kayit parce que yow ci man bokk parce que man boo fekkee ne am na oto ba ma joxee pour ma joxee nit ki pour mu mu jël sama oto dinaa ko matal kayitam ba mot sec en la majeure partie nag euh, borom yi dañ leen a jox kayit ba mu mot sec daggal fii si mairie wala ak leneen ak leneen dañuy jël xaalis bi di lekk boobaa chauffeur yi nag euh, kii policiers yi bu ñu gisee dañ lay jàpp parce que oto moom yaakaar na moom dafa war a kaaraan nga ba mu yoo xam nga li ma la wax nga dem saa kayit police yi bu ñu la gisee dañ lay jàpp laaj la loo am loo am boo amul dañ lay jàpp nga fay. nga dem ñu nga fay ñu ñu daggal la kayit nga dem fay mairie ko defee boobaa fi kenn da ngaa motal kenn du la jàpp kenn du la sonal